téléspectateurs c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve dans votre émission Vox Arena fii ci télévision Equivox TV ñu ngi taxaw ak benn champion ñu naan ko Blindé mu nekk champion de lutte mu dëkk fi nga xamante ne moom mooy Parcelles Assainies moom la ñu seet si tey fas yéene waxtaan ak moom ci carrière am ci jaar-jaaram ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum Blindé. waaw maaleykum salaam sama gars yi maa ngi ziar ñëpp di gërëm ñëpp di sant monde entier. Euh, mu nekk jaar-jaar boo xamante ne marqué la bëri nga mbapat euh, lan mooy say jaar-jaar ci mbapat. waa mbapat moom daj naa si lu metti quoi. xam nga rek si mbër mu ndaw waa dem di keti jii xam nga di ñëw di togg añ mobiliser wu xam nga topp ma làmba ja soo bëree daan mu neex neexaay boobu noonu xam nga tàmm ko xam nga looloo tax loo doon def benn da koy def fukk pour muy gën a neex waaw loolu moom ma gën a dugal si làmb ma gën a téye làmb topp mbapat yi di bëree topp mbapat yi di bëree ba mujj bi ma ne dootuma bëreeti fii di dem si àll bi di bëri ji di jël ay nag di dem ay Joal di bëre di jël ay nag di dem ay Palmarin di bëre di jël ay làmb Fatick ba xam nga Kaolack di dem fu ne xam rek làmb moom soo siy jël rek da ngay kontaan waaw ndax amuru làmb lenn rek la mooy jël bi quoi te bon yàlla mu ma doon suturaal mooy jël ay làmb quoi waaw di ñaan yàlla yàlla di may gën a suturaal quoi waaw loolu moom dugg ci làmb. ban mën naa wax ban année nga dugg si làmb yow euh, mbapaat que ça soit Mbapat ban année nga ci dugg. waaw Mbapat damay dugg si mbapat boobu xale laa woon ñu bëri su ma rombee sama waa koñ sax dañ may reetaan ndax lu ma tolloon quoi dañ may reetaan commencé di toj ak ree ma gëm sama bopp rek gëm ci gën a marqué ci li nga jotagum bëri ci mbapat ban ndam la ci gën a neex wala ban defet la ci gën a metti. waaw mbapat ban defet moom si gën a metti mooy sama premier defet ma am si mbapat ndax man dama ñëw rek doon jël làmb. di ñëw di tegle làmb yi. léegi xam defet bu ma gën a metti muyaa moo ma ko teg benn mbër bu ñuy du Dumbuya moo ma bon doole nag te mbër la woon te man xaw ma woon ni mbër la woon xam nga sooy daan di daan rek victoire yi di yokk da def ni ku ñëw ku nekk sa kanam rek yaa ko mën waaw defet boobu ma gën a metti quoi ndax moo nekkoon sama premier defet ci waaw bu ma si gën a neex nag si mbapat yi maag zëm la waaw zëm bu dekk euh, set ndax combat ba lu tax mu neexoon ma mooy zëm matoon na ma ñaar ba pare ma nekk booy te zëm jamono jooju mu ngi toj te jamono jooju tamit man maa ngi ñëw ma bëgg ko daan pour bëgg a nekk ci kaw combat bi métti woon trop mu jaral ma lu ne xam nga ñii di wax su la jàppee da lay damm ñii di wax ne far yàlla def ma dem bëreeg moom daan ko quoi waaw ndam boobu ma gën a neex si ndam nga jóge foofu ci mbapat daal di enchaîner dugg ci bëre dóor bëre dóor kañ nga ci dugg waaw bëre dóor maa ngi ci dugg 2014 2014 laa si dugg waaw sama premier combat maa ngi lom toora la woon lom toora bu fas waaw lum tooro bu faas am premier combat waaw combat boobu nag lu ma si gën a neex tamit mooy dama ñëw promoteur bi ne lom tooro moo la mën soo bu jeexee moo ko tëggoon ne moo la mën mën na ko kii mënuma jox ma ko mu ne non non yow kii duma la ko jox ma yëkkati cinquante mille jox ko ne ko sama reliquat sama lépp jaay ma ko biyee kii mënuma mu ne booy comme def nga lii naa la xoola benn booy bu nooy nga daan ko ma ne ko non bugguma ko nooy mu na ma ñëwul komba santa ñing ak euh, yanda ba bu ñëwee ma gis lam tooro di bëre door waaju dóor yi metti daan ko mën a ko jox ma ko mu ne ma non kii moo la mën mën a ko jox ma ko ma jël combat bi bon fu ma romb rek gaa yi commencé di wax kii moo la mën waroon jël avance bi xam nga yaa ma a xam rek ma gëm sama bopp ne kii dama koy daan waaw entraîné maa ngi entraîné bu jour boobu camp caserne Samba Jëri Diallo si zoyu seen yi foofu laa doon entraîné waaw combat boobu mu gën a neex si combat yi ndax dama ko dóor ba mu xëm ba mu xëm waaw mu toog trois ans bëriwul ndax combat boobu lu tax ma defee ko noonu mooy moom yëgoon na boppam moom tamit daa ñëwoon pour duma ma far yàlla def ma duma ko waaw. combat ma foofu dal ci ma jógee foofu nag sama premier combat dal ci benn mbër bu ñuy wax Boy Niang Boy Niang kees sa dëkk waaw Modou Anta moo ko indi woon jour boobu sax waaw ñu bëree bëri bu métti waaw mu dóor ko ba mu kaw après xam nga rek ji ko xale rek comme am naa ndam rek yaa ma gën a xam ma jëlee fa defet mu nekk sa première défaite mu nekkoon sama première défaite défaite bu metti sax waaw. mooy fuggu xale rek maa la mën tey ma rey la waaw. nga jógee foofu war a dellu si nga daje ma daje si tafa coor ma daan ko après ma daje caabi géej ma daan ko. caabi bi daal di réer. waaw après ma daje dugg def daan ko pare si dugg def am tumaane combat Gris de Ablaye Ndiaye bi maa ngi tumaane ñëw fa bëre. ma kaaw ko comprendre ma pare fa dem am euh, nu mu tuddee sax Yékini 3 daan ko am waali bañ naa daan ko noonu daal par la suite di dem noonu rek ba si kaw waaw yàlla di may suturaal. sa premier grand combat kan nga ko bëreel. waaw sama premier grand combat nag maa ngi Youssou la. waaw bu bu Père Balla boobu trois pilages yi def ñu jox ko victoire quatre appuis trois pilages yi def ñu jox ko victoire. foofu. foofu boobu laa amee Aliou Mbaye Nder waaw boobu ba ma daanoo ci combat dama jël sama sac dugaat ci àll bi ndax daa ma manqué woon lu bëri loo xamante ni du woon yoon ma daan Youssou Ndour daan ma wante yàlla moo ñëwoon rek ba tamit ma jóg jël sama sac gars yi sama gars yi nii aw ma seen fay quoi si nekk wax na ma lu ne pour ma yokk jom xam nga ma jël sama sac dugg si àll bi dugg si àll bi di jël ay làmb ñuy dégg ni da jël na fi Blindé jël na fi Blindé jël na fi. ñu jox ma ay combat ma bañ comme noonu ñu ñama yaag daa bu Texas combat guy gi maa daa ñoo mu ne bëréewu ma comprendre ma ñëw ñu jox ma Aliou Mbaye leer yi ne bu ko jël moo la mën boobu ñoom victoire rek lañ doon gis ñoom yaakaar nañ su ma duggee si Aliou Mbaye damay am defet xam nga rek supporter ma ne leen gëm naa ne dama koy daan soo xoolee franc lamb ji mu doon jël ñaaxar maa ngi koy nuyu bu baax waaw champion la quoi lamb ji mu doon jël ñaaxar man maa demi-finale foofu champion yëpp ñu ngi fa woon ñoom ngel joon na gaa yëpp ñu ngi fa woon maa daan grand Manick daan gaan Seras daan Biram Soudiane demi finale ak Malika ñu bëree bëree bu métti ba temps bi jeex te ñooñ dañuy daan bébé jën ko comprendre na foofu laa ko foofu laa ko tegoon rek. donc bébé jën jaaxalu woon ak li mu defagum ci làmb ma jaaxal parce que fekkee doole ëpp ma ko te su fekkee bëre dàqu ma bëre xanaa yàlla ñëw rek waaw te gëmoon naa ni kii arbitre su ne su su suuflee ma bëree moom su ful ak man soo xoolee sama lutte frappe damay toog sax di waxtaan di bëre dóor ma mën la comme ni nga gisee simple bi ma def loolu bëre dóor bi laa gën a mën ko loolu sax ndax lu ma gëm la maa moom du kombaat te taxuma jóg te soxla ma ko sax. toll nii foo la indiwoon avance am doo ko jël. non non avance xanaa ma jox ko sama boy boy <laughs> mu bëre moom quoi ante moom taxuma jóg yàlla xam nañ taxuma jóg ku ma tax a jóg moom mu ngi moo ko jiite. ay ñoom jën kayre comprendre ay ñoom ay ñoom coin coins ñoom double moteur diis nañu jën kayre tey moom ak coins taxaw na ba pare ñoom ñoo war a bëree mais sa waay loolu diis na de laajal coins kuy bilende coins waaw ma koy laajte foo leen jaar daje nañu jaar nañ Joal maa moom daje nañ su fekkee combat la moom xam na si dara su fekkee du combat xam na si dara ndax lu mu daj foofu musu ko daj ci benn mbër musu ko daj si benn mbër. mais ni mu demee daan. non moo ma daan dañoo bëre ba temps bi jeex ndax tey dama jël làmb ji tey ma jaayaat làmb ji ñaari nag lañ tegoon ma jaayaat ko ku tegoon làmb ji ñëw waat ba demi final. yaa ngi dégg est-ce que moo demee noonu wante suñu bëriwaatoon te loolu yàgg na boobu maa ngi gën nekk booy suñu bëriwaatoon jamono ji ñu toll nii du demee noonu sax. dama ñëw rek faxas leen jàll. mais Noiro mi ngay laajte Noiro sa waay gis nga li mu mujj def boy Noiro Noiro dis na man de du ma la digal noiro. da mel ay noiro nii di reetaan. <laughs> noiro du ma ko laaj sama waale. promoteur yi ñu ngi doxagum komba ban lañ ban la ñu nekkagum di dox. lan la sa manager wax. waaw combat yi ñu dox ba mu bëree Ali Mbaye ba léegi ñu ngi dox combat te ñu may soxla dañuy bañ Double Moteur ba mu daanoo lañ ma ko jox ñu bañ Coly Faye numéro 2 mu bañ gàmmu Gueye mu bañ dafa Leer mu bañ Pape Ndoye moom ngay wax mu bañ nañ ñëw ñu bëri. làmb ji amul lu fi yomb ay yoon ak affaire yooyu xam nga gars yi lan la ñuy bëgg bi di def di bëre ay comédien ay di bëre ñoo xamante ay reetaan lañ leen di def ak affaire yooyu man doxuma si yooyu man damay liggéey làmb ji nii benn diplôme laa si am instant nii li ma doon liggéey yëpp moment bu ñu toll dama ko bàyyi benn diplôme laa soxla moom laa dese muy làmb te li ma gëm la li ma gëm la quoi nañ ñëw ñu bëre ñoom ñoo yàq làmb ji a promoteur yeeg ñi ñoom ñoo yàq làmb ji ndax ku si xam nga ki nga war a bëreel alors nga nekk xale euh, côté séance d'entraînement yi nu muy demee danga am ay coach yu lay suivre. waaw bon sant yàlla bu baax a baax parce que am naa moniteur musculation am naa entraîneur physique am naa entraîneur contact muy suñu entraîneur dama koy nuyuwaale muy grand aada waaw tey jii luñ mun lu ne moo ñu ko munloo grand aada mooy suñu entraîneur dañ koy ñaanal yàlla yàlla may bàyyi ko fi ba ci kanam may ko gudd fan a wër ba mu mun a fekkee suñu njëriñ comprendre di nuyu tamit gombe yow gis nga gombe moo ma yor combat bi passé moo ma préparé mu nekk grand bu baax bu ñàkk ñaan dañ koy ñaanal yàlla tamit xam nga li muy bëgg suñu xam yàlla defal ko ko quoi loolu la parce que ñooñu aw ma seen fay waaw. alors euh, ñu fekk la ci saalu Top Fitness ñu leen di remercier euh, déjà Top Fitness ci accueil bi ak ci professionnalisme bi ñi nga xamante ne ñu ngi koy liggéeyee alors lan ngay tàggatoo ñan ngay gërëm ba beneen. waaw waa salle bi moom mention spéciale parce ñoom. ay borom baax lañ ndax saal bi bañ ba léegi ñëpp lañ yemale mooy gërëm ñu ma àndal ñu si mel ni ay Modou Boy ay ñoom Babou ñoom Seega ñoom Seeku ñoom Seeku dama bëgg nga jël bu baax comprendre ñoom Tafa Tafa Ema ñu koy wax Poul comprendre ñoom Aada Ñaa ay Aada Cissé comprendre ay Grand Mbay ñu koy Mbay Yikini moo nekk ne si ginnaaw xam nga di yàlla xam nga ñoom yàlla defal la liñ bëgg quoi ndax dañuy sonn si man. Babacar Sall kooku fu may entraîné nii moo koy fay comprendre ku su mel ni Alpha dama koy ñaanal yàlla def fu mu nekk gënal koo xam nga fu mu jógee nii ba mu am lu mu bëgg. Mansour sàll kooku tamit grand bu baax la dama koy ñaanal yàlla tamit xam nga ay ñoom baakar yi manga comprendre dama leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñoo Amina Jabaay Amina kooku sama jigéen la kooku. xam nga yàgg yàgg na ay ñoom Mayib Sall Mayib samay combat dañ siy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax comprendre ay ñoom mère Fama Ndiaye xam nga gars yooyu yëpp ci jaan baro comprendre ak sama benn grand boo xamante ni lu ma dugg lu nekk rek da siy sonn comprendre du koy ñaanal yàlla tamit moom tamit xam nga fu mu nekk noonu noonu yàlla dimbali ko ba mu am lu mu bëgg ba ñibbisi muy grand laay sama mag la. dama koy ñaana yàlla yàlla defal ko lu mu bëgg ay ñoom bul comprendre xam nga ñoom xam nga décee ga ay nekk foofu yëpp samay grand lañu xam nga ñoom musaa Kanité ñoom mataar topp musaa Kanité kooku day yàgg ci man ay ñoom Bois Soirée Bois kooku un la si man du deux quoi dañ siy jàpp bu baax a baax di gërëm waa Unité 16 Unité 16 dama leen di gërëm bu baax a baax a baax comprendre ndax dañuy sonn samay combat di si jàpp di gërëm nag fu ma jógee muy Unité 17 unité 17 ñooñu dama leen di ñaanal yàlla xam nga yàlla defal la li ñu bëgg ndax dañ ma bëgg quoi dañ ma bëgg trop booy fa nekk sama booy gars yi xam nga ñoom dañ siy jàpp bu baax a baax a baax di gërëm 1 ba 26 daal. di gërëm sama waa écrit tamit sama waa écrit surtout sama waa écrit maa leen di gërëm bu baaxa baaxa baax a baax. séeréer yi may kontagal maa leen di gërëm ñoom ñëpp. ëmma euh, Malick ak soxnaam maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax waaw di wax aw ma seen fay quoi na leen yàlla jàppale di gërëm tamit maire bu ma dëkkal muy sama maire muy sama yaay maire Fass Cissé maa ngi koy gërëm bu baax a baax a a baax ak ñoom aji daba aji daba sama xarit la sama waay la est-ce que comprendre waa gàlle bi yëpp maa leen di gërëm di leen ne man xale laa rek te nekk seen ginnaaw dama bëgg ñu jàppale ma bu baax a baax a baax ndax man awma lu dul ñoom comprendre te maire bi tamit gis naa lu muy taxawoo si man bëggul leen lu ma metti mbokk gis ngeen euh, Blindé ni mu waxtaanee ak ñun Euh, ni mu relaxé ni mu entraîné aussi fi ñu jaar lépp ñu koy remercier di remercier ñi mu àndal ñëpp di remercier également waa Top Fitness nga xamante ne fii la ñu ñëw fekk fii euh, saa yi ñu bëggee ne ñu yaatal ñu ñuy remercier bu baax a baax madame Bousso ak équipe bi nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ñu leen di jox di daje très bientôt beneen numéro Vox Arena peace